sargal ndax am mbégte ci toogaay bi ak ci dévouement bi nga xamante ne moom laa leen fekkee monsieur le délégué régional monsieur le ministre Pape Diouf maa ngi lay dalal jàmm di am mbégte ci sa teewaay li ñu dajalee nga xamante ne région de Diourbel yow lañ ko dénk ñu am contentement ndax am nañ ay écho comme quoi di tey liñ fi jël ci ay parrain moom macha allah ça a répondu à tes attentes kon ñu ngi la ciy félicité bu baax di félicité l'acteur l'ensemble des acteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo fi taxawu le président son excellence Macky Sall. balaa ñuy dugg ci waxtaan bi dañuy ne albaraka président Macky Sall jërëjëf président Macky yow mi nga xamante ne yow yaa am vision boo xamante ne dafa éclairé ba. nga mun ñoo tànnal le meilleur profil pour la continuité du plan Sénégal émergent amuñu sa fay de xam nañ ne bëgg Sénégal moo tax nga jël boobu profil ne boo soorul woon Sénégal amaana leneen am waaye profil bi yàlla nga daje ak sa bëgg-bëgg mu daje ak bu suñu borom ci barke yonent alayhi salaatu wasalaam loolu la ñuy ñaan candidat Amadou Ba ñun de ñu ngi ñaan yaakaar bi nga xamante ne moom la président Macky Sall am ci moom yàlla na ko mëte te ragal nañ ne mëte na ko ndax fu nekk coytu nañ ko yàlla na ci yàlla def li ñu ci bëgg bañ a def leneen ci barke yonent alayhi salaatu wasalaam Ah, Baye Alla maa ngi lay nuyu di la bu baax di am mbégte ci teewaay bi fi teew monsieur Cheikh Mbacke Faye euh, chef de service de l'administration financier de l'hôpital Cheikh Khadim maa lay nuyu bu baax a baax a baax fii lépp loo fi wax rek yow la ne confiance bu ko amee ci nit ci moom la merci pour tout sama mbokku jigéen ñi ñi fi jël kàddu ñi fi jëlul kàddu amul fu sama bët demul gërëm naa leen sant naa leen yéen xam ngeen ne lii nga xamante ne dañ ko def cérémonie de remise de parrainage mënoon nañ ko def ca biir kër ga dëgg la de waaye parti dafa war a am animation moom moo waral ñu jël bi euh, stratégie pour animation partie c'est bu yàlla deuxième phase bi it ragal naa ne bu boobaa moom ba bâche dañ lay bâche <laughs> ñu kontaan bu baax ñi nga xamante ne ñooy ko ñoom ñoo ñëkk jël kàddu sant naa leen gërëm naa leen gis naa seen délégation jeunesse féminine maa di sant di leen gërëm ci seen taxawaay gis naa accueil bi sama xol sedd na ñi nga xamante ne ñoom ñooy magu parti bi di soxna yi ñoom gis naa leen ñeen ñëpp sañ say rafet na waaye li ci des daal mooy gën a dugg ci biir koñ yi gën dugg ci biir kër yi jëli ñi nga xamante ne joxeeguñu seen ay parrainage képp koo xamante ne yaa ngi fi di responsable aw ma seen fay man bëgg bi ngeen ma bëgg mënuma koo wax bu ma ko génnee ndax nit dina la jox loo xamante ne mën nga ko koo delloo waaye man bëgg bi ngeen ma bëgg man xam naa ne man mënul mënul ko delloo kon yàlla leen ko yàlla fay ci barke yonent alayhi salaatu wasalaam waa yaay puy fal Amadou Ba bu ma leen nuyoo bu ma nee soxna May Jaw ak ñi nekk ci gannaawam soxna war na doy bu ma tuddee Abdou Bigué naa yi war na doy yal na leen yàlla àggaleel fa ngeen bëgg àgg liggéey bi yal na leen ci yàlla may ndam ci barke ay ay ba yonent alayhi salaatu wassalaam maa ngi sant bu baax di gërëm mag ñi nga xamante ne ñëw nañ fi te yaay kuy woowu leen yaay kuy déggantewul ak ñoom waaye ñu xam ne mbiru président ak Sall seen mbir la ñu ñëw fekkee ko maa ngi ziar maa ngi dégg sama ay doomu bopp yi fi nekk njabootu Alaaji Baara maa ngi leen siy dégg maa ngi siy dégg maa ngi ma maa ngi ànd ak njabootu sëñ Sidi bu sëñ Abdoulaat ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar balay sa di sàkku seen ñaan ci seen barke maam yi yàlla li ñu dugg ñu dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim génnee ci ci alhamdulilahi rabil alamin monsieur le délégué régional kaddu yi nga xamante ne moom dañ lay yóbbante foog naa monsieur le saf Cheikh Bakar Faye wax na lu ko léegi engagement ak détermination du loolu moo fi manqué li ñu manqué mooy lu ñu wax nit ñi ñu fexe ba respecté ko ñoom ñu mën a gis seen bopp ci lépp président Macky Sall Touba lu ko fi war def na ko autoroute Ila Touba doy na hôpital Cheikhul Khadim doy na assainissement bi muy def fii ci Touba wax dëgg yàlla mënuñu ko see fay waaye nañu gën a yokkal très bu ñu yokkalee ñu ngi ñaan ci barke yokk boobu mu yokk moom li mu bëgg moom mu am ko ci barke Cheikhul Khadim kon oh. président Amadou Ba ñu koy wax na tàllal ñëpp loxo bu mu beddi kenn ku mer na jëli képp koo xamante ne musul dugg ci politique nañ ko jëli na gën a social mu ngi ci social bi waaye na ko gën a def bu ko kenn téye ci digganteem ak doomu aadama yi doomu aadama ku ko yëg moom la bëgg doomu aadama ku ko faale moom la bëgg kon beddi bi beddoon euh, ni ñuy beddee nit ñi nañ ko bàyyi te gën a ragal suñu diggante bi suñu borom nañu bàyyi di toroxal doomu aadama yi nit boppam da am nit sagam da am kon nañu gën a suturaal nit ñi gën leen a sagal yàlla des moom li nga xamante ne ñu bàyyi ko moom mu def ci des ci barke Cheikhul Khadim di leen di jox rendez-vous ah ñu ngi ñaan fii ak de 2 novembre ñu ngi xool délégué waaye entre de 2 2 décembre incha allah ñu ngi bëgg le 2 décembre wala le 3 nga ñëw ñu def suñu clôture pour parrainage yi incha allah rabbi jërë ngeen jëf kontaan naa bu baax a baax a baax li nga xamante ne nag. jóge nañ ci yeneen entité ñëw fekk ñëw fekk suñu man bu doon sama sago sax kenn du leen teg ci kanam ndax ñun ñëpp benn la nit yaa ngi yor ay structure di liggéey am ñoo xamante ne seen biir kër dégguluñ leen kon ñëpp même famille la nañu fexe rek ñi bokkul ak ñu jógul nañ dem jëli leen loolu mooy mooy liggéey bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci barke Rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam yàlla yàlla wadale wax ci jàmm ci barke Sëriñ Ba waaw léegi nag maa ngi eh, maa ngi gërëm ndax mobilisation bi gis naa ne presse bi ñoom kenn demul ñu des kon ñu ngi gërëm presse bi bu baax di gërëm. lépp loo xamante ne SMILE wër na ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor animation mbooloo mi dañuy tàmbalee ci sant sunu boroom tuub ci yonentam bu tedd sallallahu alayhi wa sallam yeesalaat sunu njëbbal ci xaadimu rasul may nuyu mbooloo mi yëpp di ñaan ñi ci saal bi ngir yàlla wax dëgg yàlla ñu déglu li nga xam ne moo leen fi indi parce que dara mel may tàmbalee nuyoo bi nag ci ki nga xam ne ginnaaw yàlla moo nu fi dajale tey muy soxna Fatou Bintou mi te ñu naan ko yaay buy di madame Mbacke ma di ko nuyu di ko ziar nag a ah, di ñaan mu jottalil ma sëriñ moom laa jóge léegi sëñ Abdou Karim mu Karima lax la ku ne xam na sëñ Abdou Karim cofeel gi mu am ci man léegi la ko mujj a fedd li kon suñu xel dal na parce que bu ma àndeek moom départ di di jëm si fii ndindi de fa la sëñ Fall daan taale bali ndindi fa bi daan taale bali kon yaakaar naa ne tey jii mën naa jàpp ne bali tàkk na incha allah li nu bëgg ci parrainage bi dina ko am li nu bëgg suñu candidat Amadou Ba bu sëñ Touba jot na dinañ ko am kon man sant naa sama xel dal may nuyu ñëpp nag responsable yi fi ñëw bàyyi seen ite ñëw ànd ak soxna si fi ngeen ànd foofu la na yokk nag mbooloo du doy soxna si na ko ci biir wax ñeneen wax nañu ko mooy nan yaatal dënn yi nañ leen waxtaan nañ leen fexe juboo ku nu juboo nañ dem seeti ko ku gedd dañ ko seeti pour delloo si ñëpp parce que mbooloo mooy doole te politique bi bu ñu demee ba kere ñu wote carte yi la ñuy wàññi nangami nit ñoo wote la ñuy wàññi kon nangami nit yooyu nag bu nu ko bareelee bu soobee sëñ Touba dañuy gañe am na mbégte nag ndax lii nga xam ne soxna si jox na ma ko te mu di tàmbali 3000 parrain déjà di tàmbali yaakaar naa ne soxna si bu ci dolli tuuti rek incha allah yaakaar naa ne dinañ romb bu baax baax li nga xam ne moom la ñu sasal lu mat weer a ngi may ñëw fii ñetti yoon a ngi may ñëw ci Mbàkke ci problème parrainage waaye nag bis bu mel nii moom amaguma ko fii. Ah! wax dëgg yàlla bis mel ni amuma ko woon non seulement jël parrainage waaye dajale mbooloo ak li nga xam ne jégg naa ko fi engagement yi fi dem am naa lu ma nett bu ma delloo am naa lu ma nett may wax xale yi nag ak jigéen ñi ak ñëpp ne ginnaaw bi ma santee sëñ Touba sant président Macky Sall mi nga xam ne moo ma jox liggéey bii maa ngi leen di xamal ne lii ngeen di wax dinañ ko jot li ci kaw am naa fulla fayda yu toll ni jàkkaarloo ñi ma war a jàkkaarlool ne leen nangam ak nangam ci Touba ak Mbacké suñu ko safa saafaru mën naa di jàngoro loolu moom na seenam xel dal kon dégg naa bu baax vraiment soxna yi nekk fii yéen a ngi jéem vraiment yéen a waxtaan wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla yéen nii c'est pas bon oh. kon ñuy sant rek te bu ñu jógee fii ñu dellu ci liggéey bi pare parrainage baax na dajale mbooloo bind leen baax na waaye nag waxtaan ak ñoom ci candidat bi ñuy pare ne ba seen am xel daal bu ëllëg si bi ñu woteel ko moo ëpp solo kon soxna si mbooloo mi comme li nga ci wax nañu dem ci nit ñi nañu wax ak nit ñi bu ko defee seen am xel ubbeeku ay yu bari jaxase yoo xam ne jaxase ko ci bopp nit ñi ñu dindi ko. pour que xam ne que candidat bi nu am wax dëgg yàlla ginnaaw yàlla amul beneen candidat bu ko gën kon nan jàpp ñun ñëpp nan takk ñun ñëpp ku fi nekkan aw feneen nañ ko wooy keneen ku bëgg a ñëwaat maa ngi sant nag ñeneen ñi nga xam ne jóge nañu Pastef ñëw fii jóge ci àll nguy ñëw fii loolu dama leen di sant parce que nit ku nekk daa war a xam fan la njariñam nekk bu ko defee mu jël fulla fay faydaam dem foofu kon maa ngi sant di leen teeru nag ñi nga xam ne ñoom lañ fekk si nañ leen yaatal booy leen seen bopp bu mbooloo mi yokkoo incha allah suñu yaakaar mën a yokk soxna si daal am naa mbégte am naa mbégte bu baax a baax sëñ àlla lay sant bu baax a baax ak responsable yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp ñu ñaan daal lii nu fas sii tey yàlla na ko sëñ Tuubaa fulal mbooloo mi yokk kii suñu candidat bu gañee bu boobaa nag ñu baree bari itte yu bare ñu di ko wax ñu mën a am saafara maa ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp